leen a yebal ngir ñu daal di jàmmarloo ak population bu Sénégal bureau politique nationale bu Pastef nag ñooma ki ñu joxañ baaraamu tuuma moo di le président de la république Macky Sall ànd ci ak ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome général Moussa ak ministre de la justice garde des Sceaux di Ismaïla Madior Fall ci seen bataaxal nag ñoom dañ ne ñu fi lim léegi ñoo war a jël lii lépp teg ci suufa waaye defuñu ko dañoo bàyyi population bi di jàmmaarloo ak takk der yi ba muy jur ay jafe-jafe ci réewum Sénégal ba jàmm ak salaam jamono ji mënagu fee am ñu ne nag lii nga xam ne mooy am ci réewum Sénégal jamono ji ñu toll nii buñ deful attention dina dem ba indi ay jàmmaarloo entre population bi te bu boobaa dinañ dugal réew mi ci guuta goo xam ne kenn mësu ko koo xamee nee nañ nag dafa am ay nervi ak biir manifestation yi te ñoom ñooñee dañ leen waroon jël am ay daan yu ñu teg ci seen kaw ndax ci ñoom seen ab communiqué dañoo jàpp ne ñooñee ñooy indi ay jafe-jafe yu rëy rëy ci jamono ji ci réewum Sénégal surtout ci kaw population bi ñu ne nag ñoom ñi ngi xarlu bu baax a baax coupure yi nga xam ni nemmeeku nañ ko ci télévision bii di Walf Fadjri waaye itam ca wet ga ñu gis Orange Expresso ak Free ñoom ñëpp ñu daal di bloqué accès bi nga xam ne permettre seeni ay clients ay sénégalais mën a yi te dara waralu ko ñoom ci seen ay kàddu kudul président Macky Sall mi nga xam ne moom lañ topp ci ay ndigalam. ñoom nag ñu jàpp ne loolee nga xam ne ñi ngi koy def jamono ji ci réewum Sénégal dictature la gën a jege que démocratie. ba tey waa Pastef les patriotes seen bureau politique nationale ñi ngi xamle ne gis nañ bu baax a baax tekk tekkaaral gi nga xam ne gouvernement africain yi moom la ñu def ak communauté internationale bi ci seen constitution bu Sénégal ñoom nag seen bataaxal ñi ngi ko jeexalee ci di wax naa naan ñi ngi woo képp kuy sénégalais ca la nga xam ne yaa ngi ca nekk nga daal di koy gën a dëggal te ba noppi di woo ñi nga xam ne ñoo di takk der yi ngir ñu ñëw ci côté wu peuple bi daal leen jàppale ndax loolu moom mooy seen mission waaye itam dañoo war a protéger constitution bi lii mooy bataaxal bi nga xam ne tukkee na ci bureau politique national bu PASTEF nekk communiqué boo xam ne ñi ngi ko génnee ci bésub tey jilee Sénégal nag jamono ji ñi ngi ci jafe yoo xam ne faw ñu daal di ciy génn ndax population lañ boo xam ne jàmm ak salaam lañ ñu mës a xamee te faw ñu daal di ciy bay suñu waar ngir loolee ñu daal di koy saxal président Macky Sall moom la ñu dénk nguuru Sénégal jamono ji ñi nga xam ne seen ay bakken mi ngi rot ci manifestation yi bëri na lool te ay ndaw lañu bu ñu sañoon daal di ci intervenir ngir lii yëpp ñu mën koo dakkal toog nag xool yan solution la ñuy jël ngir toog waxtaanee ko Sénégal delluwaat ci lañ ko mës a xamee muy jàmm muy salaam muy teranga mu di peuple sans violence peuple boo xam ne kaf ree dong lañ koy xamee waaye itam ñuy continuer di dem di régler ay jafe-jafe ci yeneen ay réew bañ ñooñee nga xam ne ñoo leen doon atte ñëw tey jële di ñu atte ci réewum Sénégal nous avons ces na cee dox ay jéego kilifa diina yi itam nañ ci def seen kéemtalaay kattan ngir Sénégal daal di dellu ci jàmm ndax jàmm jooju ñun ñëpp ñoo ko daal di soxla ndax réew mi jafe-jafe yi mu nekk mënut a continuer ndax économie bi yëpp dafay daal di bloqué te bu yàggee li muy jural sénégalais yi na doy waar lool ci suñu nekkin ak suñu dundin kon nag ñun ñëpp muy président ma ci sàll muy takk der yi muy ku mënti doon soyons du côté de la population ndax Sénégal jamono jii moo soxla te bu soxlaa ku ci nekk say intérêt war nga koo jël tegee côté jiital intérêt peuple bi bu ko defee lañ ñu xamee woon ñu daldi ci mën a dellusi AGT News